kon nachatu muhammadin qabla nubuwa moom la ñu jàngoon jàngoon nañu aw askanam leeral ay turam ak juddoom ak nàmpam faatug way juram ak yar gi ko maamam abdul muttalib yaroon ak bayam bu ndaw abu talib tukki bi saam fekke gi fekke xarbul fijaar ak xilful fudul denc gi mu denc Xadija ak atteloo gi ñu ko doon atteloo ci bi ñuy tabax kaaba bi ak li mu daan liggéeyee jëkk nëbbu gi di ñëw kon loolu fukki tomb la ak ñeent yooyu leeraloon nañu ko ñu ñëw tey ci alfaslu thani te mooy nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam danañ jàng tàmbalib waxyu gi ci yonante bi ni mu ko dikkee euh, teg ca woote gi yonante bi woote islaam ginnaaw bu ko waxyu gi ñëwalee ni mu daan wootee ndànk ci suuf ak bi mu tàmbulee biral woote bi di woote ca kaw ak jànkonte gi waa Qurayshin daan jànkonte ak moom ak xupp gu ko daan xupp moom yonente bi sallallahu alayhi wa ginnaaw bu xupp amul njariñ it fexe giñ doon fexe xiirtal ko euh, ci mbiri alal ak pouvoir pour mu wàcce ànd seeg ñoom yooyu yëpp dinañ ko jàngat tey jële kon tàmbalib waxyu gi bi yonente bi sallallahu alayhi wa amee ñeen fukki at la ko yàlla yabal ci nit ñi muy bégle di xuppe di bégal ku ko topp nangoo topp yàlla ci xéewalu aljanna gu sax dàkk di xupp yit ku ko mooy mooy yàlla ci mbugalum sawara mu sax dàkk yàlla nee na ko ci alquran wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa nadiran walakinna akthara annaasi laa yaalamuun mu ne ko dama laa yónnee ngir nit ñëpp ak di xuppe waaye lu ëpp ci nit ñi xamuñu yonente bi fi wax yu gi jëkk tàmbulee ci moom mi ngi daan tàmbulee ci mi ngi daan tàmbulee ci euh, gént gént gu gént gu dëggu ci la wax yu gi tàmbulee ci moom yonente bi daan def du gént mukk ak gént taddu lam gént gise na ko na mu ko génte wax yu bi mu daatal ñëw foofu la tàmbalee waaye ginnaaw bi yàlla bëgg loo ko wéet ak di beru mu daan beru lool ay nitam ngir lañu daan dund ci ak réer di jaamu ay xiram ak di sujjootal xiram yi lool yi dafa sore lool ak li muy yëg ci xolam moo tax mu beru leen sori woon leen lool daan beru ji ku bëggoon wéetaay la moom yonent bi sallallahu alayhi wa jëkk wax yu gin ñëw ngi tànnoon mel na xunti mu ñuy wax xaaru xira daan fa wéet daan fa wéet di fa jaamu yàlla ay guddi yu bari yu toftaloo yisaa dana fa am fukki fan yisaa dana fa toog lu mat weer bu masaan dem nag dafay jël ab yóbbal yóbbaale ko boo xam ne ci lay dund bu dund boobu jeexee mu delsiwaat ci këram jëlaatub yóbbal delluwaat ca xunti ci loolu yi la nekkoon ba wax yu gi dikkal ko mu nekk ci biir xunti moom mi malaayika mi ko dikkal te mooy jibrilu alayhi salaam bi mu ñëwee da ni rek iqra jàngal mu tontu ko ne ko ma ana bi xaari in man de duma jàngkat yonte bi nee na mu jël ma naj ma ba sonal ma daal di may teg ni ma jàngal nee na ma ni ko ma ana bi xaari in wallahi duma jàngkat nee mu jëlaat ma yoonu ñaareel naj ma ba sonal ma ni ma jàngal ma ni ko du ma jàngkat yoonu ñetteel wi nag bi mu ma najee ba ma la ni bismi rabbika xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi ma lam yaalam juróomi aaya mooy li jëkk a wàcc ci alquran ci yonente nee na bu mu ko jàngalee loolu nag mu jàng ko mokkal ko waaye yonte bi dafa daal di jóge ca xuntima dellu ca waa këram ba muy dem di lox di pat-pati àgg ci soxnaam Xadija ni ko zammiloo nii zammiloo muur leen ma muur leen ma ne nu ñu daal wut lu mel ni mbàjj muur ko ba tiitaange ji dañ bi tiitaange ji demee mu nettali Xadija li mu gis daal di ni ko man de damaa tiit ci sama bopp fi nu toll Xadija ni ko mukk la yàlla du la gàcceel yàlla du la gàcceel mukk ndax yow de da ngay jokk ak bokk di berndeel gan di yanu ko lot di fàggul ku ñàkk di dëmbale ci xew-xew yi dëgg yi saa bu xew-xew dëgg dëgg ñëwee nga nga jàppalante ci ak nit ñi kon day xam naa ne yàlla du la gàcceel mukk daal di jël yonente bi moom Xadija ànd ak moom dem ci doomu baayam buñ daan wax Waraqa ibnu Nawfal te fekk Waraqa ibn Nawfal moomu dafa doonoon ci jaahili yi moom dafa jàngoon xam-xamu euh, xam-xamu téere yi jiitu woon maanaam ab nasaraan la woon ku amoon xam-xam la moom Waraqa ibn Nawfal moom mag la woon mu àggoon ci silmaxa demoon na ba gisatul bi ko Xadija andee ci waraqatu ibnu nawfal moomu ni ko déglul li sa doomu mbokk mi di wax neen war a wax yonante bi ni ko loo gis yow sama doomu mbokk neen yonante bi wax ko li mu gis war ne ko lii de mooy naamoos gi wàccoon ci Muusa gi yàlla wàccee woon ci Muusa mooy naamoos nag bu ko waxee mooy malaayika mi yor mbóoti malaayika mi wàccoon ci yàlla wàccee woon ci Muusa lii nga gis loola la aka neexoon ci jamono bii ma doon gone aka neexoon may ndaw aka neexoon ma fekk jamono yi la sa saw nit di génne yonente bi ni ko awa muxrijiyahum ndax dañu ma nar a génne kooku ne ko waaw kenn mësula indi lu mel ne lii nga indi te du noonu nañu ko génnee ko waaye su ma fekke woon say fan bi dana la dimbaleen dimbal lu dëgër waaye nag waraxa yàggatul ci àdduna tan di faatu bi mu wax yu gi dafa dagg am na ab diir boo xam ne dafa dagg dagg na lu mat ñeen fukki fan ginnaaw bu ñeen fukki fan yooyu jàlle nag la wax yi door a tàmbaliwaate ñëw di toftaloo di wàcc di wàcc di wàcc ginnaaw bi wax yi gi wàccee ba yonente bi xam li ko yàlla jubloo yónni ci nit ñi la daal di tàmbalee woote loolu ko yónni woote bi yonente daan woote ci suuf moom lañuy ñuy leeral ni kon yonente bi ak wooteem ci suuf ci mbirum islam yonente bi jóg di def loolu yi ko yàlla digal di woote jëm ci islaam di woote jaamu yàlla moom képp bañ ko booleeg dara waaye woote boob bépp nag ndànk la ko daan def ca suuf ñemewu ko fisal ba nit ñi di ko dégg ngir moytu naa bett nit ñi ak xibaar boobu daf leen di jóge kaw ndax xamuñ woon lu deme noonu mbirum yàlla xamuñ ci woon dara dañ daan jaamu ay xërëm boo jekk yi ñëw ni leen xërëm yëpp dara du ci dëgg wàcci leen ko te jaamu yàlla loolu mbetteel lay doon ci ñoom moytu gu muy moytu mu bette leen noonu moo taxoon mu daan woote woote bi ci suuf ka jëkk a gëm nubuwa ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy soxnaam soosi di xadijatu radiallahu anha xadija bintu xuwaylit ak ali ibnu abi talib booba moom sayiduna ali mi ngi toll ci fukki at eh, dañoo wax ni dafa am atum bekkoor mu xewoon foofee ci màkk te abu talib dafa doonoon ku bari ak njaboot te néew alal yonente bi mi ngi woon ci loxoy Abu Talib bi loolu yi amee moom moo dem ci Abbas waxtaan ak moom moom yonente bi moo wax baayam bu ndaw boobu ñuy wax Abbas ni ko sa mbokk mii di Abu Talib di bari na ak njaboot te it jamono ji nii nga ko gisee tar na metti na dama bëgg nu jàppale ko ci njabootam googi ma jël kenn nga jël kenn léegi ci biir loolu ñu ñëw ci Abu Talib wax ko lool yi biñ ko ko waxee Abbas jël Jaafar yonente bi jël Sayyiduna Aliyun war koo féetewoo féetewoo ab dundam kon Abbas moo jël Jaafar ngir di ko dundaaleel yonente bi jël Aliyun ngir di ko dundaaleel kon seenub ànd dafa yàgg ànd boobu mu ànd yaroo ci ay loxoom moo tax bi yonente bi feeñalee nubuwa gi boobu mi ngi toll ci fukki at waaye bi Xadiija gëmee rek moo ci topp kon lii sababu mu bokk ci ñi jëkk a gëm mooy dafa nekkoon ci loxol yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëkk nubuwa gi di ñëw moom sayiduna ali kon ñaar ñooñu ñoo jëkk gëm muy soxna xadija bintu Xuwaylid ak ali ibnu abi talib radiallahu anhuma abdullahi ibnu te moom la ñuy dàkkentale abu bakar moo ca topp dafa doon xaritu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi wax yu gi ñëwee